maa ngi leen naa introduce garab boo xam ne solution la ci wàllu wér-gu-yaram allergique bu chronique daf ko faj biir buy def noise biir buy metti pile internal ak external general fatigue moo importantly gaaw a daanu góor buy gaaw a yëg boppam soo ko utiliser nga am ci sa bopp the difference moom ak garab yi mooy bii natural herbs la amul benn chimique tey lu mel ni gara soo ko naanee dafa attaque sa xol bi ngay pompe moo blood moo tax ñu bari daf leen di rey waaye garab bii soo ko yuusee sa immune system bi la moo attaque da ngaa gis ne gën ngaa dëgër gën ngaa am wér yaram gën ngaa sawar te soo ko naan regularly doo am diabetes doo am high blood pressure because dafa control sugar ak salt level bi sa yaram garab bi nag képp koo xam ne utilize nga ko luñ la ci wax ni nga gis yépp mu dess ben money back is guarantee pharmacie bari nen l'hôpital yi bari nen do gis benn tuba bu ñew mu ne la nanal suma garab soko ko nga jotat sa xaliss bot bi dama ko def because galik len ko defaree cola ginger ak yu mel noonu li mo def ci wergu yaram yépp soko waxe ñu wedi la because gambie moy deka bo xamne nit dafa degam bi rek confirm ko ne degala wala mu dégg ko dinaay ko du ci xam lu ko leer man nak luma ginal before nga wax ne baxna na test ko before nga ne baaxul test ko because soko testé amut losses ben bottle bi 2000 dalasis la mo jar soko nané di nga mëna tedak sa jabar more than one hour te do daanu soko nané do yek ben choono soko nané sa bir bi du yuuxuwaat soo soko nané mu dog pile bi amna treatment pour ko xamné da nga am gawa daanu amna treatment pour ko wara faju pile, for more details da nga call 595 5555 benn 5 ak 9 ngay def lu des yëpp 5 boobu mooy number bi to call